ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll fii a jot a xam li nga xam ne sëñ Muntaxa sëñ daje woon nañ fii ci ci yëf yi muy doxaluk taalibeem nangu nangu ndigal ba muy jox addiyee sëñ Baara daa laxasaay woon daaw ba ñuy bëgg a màggal nag sëñ bi ne bu safar teroo na dem ca penku su jumaa ja ngeen fekk ko ñi jàng fay xasaayit fanaan fa ba suba laa leen ni ni nguur di def de sëñ bii da xaw ma seen biir waaye daa mel ne passation de service lañ doon def te loolu li ma doon wax yàlla def na passation de service sëñ Muntaxa da ko doon joxaat sëñ sëñ Abdou sëñ Cheikh Matilay da ko doon jox sëñ Muntaxa yoonu yoonu sëñ Touba waxtu wu ne dana seet ku ko mën a yor mu teg ko ci say loxo dama leen ne nun taalib yi neen dëggal dëggal doo ngay leen dese mooy mooy leen war itam te li sëñ bi santaane def ko Cheikh Ibra dane woon ab taalibe bu sëñ Bàmba meree nan naaj bu soxlaa nu ñàkk mooy dëgg joxe sunu ñaq am ñaq de su ko moom ci jëw jàmbur li sëñ bi santaan nañ ciy denc nañ ciy sax waaye denc lu bari ba noppi fab lu tuuti jox sëñ bi damaa daje woon ak waa joo xam ne day wër jumaa ne dañ koo tafu 2 millions ma ne ko loo loo teg ci barab bi mu ne ma ñaari téeméer ma ne ko ñaari téeméer booy suñ booy dugal fii suñ tubaa ñaari millions yokku na ko jox loo ko fa yóbbu nan sax ci taali bi sax ci jub toj suñ xol yi nangoo jox suñ tubaa addi yi Cheikh Ibra day noonu alal yi sëñ Tuubaa laaj soxlawu ci dara waaye fu alali nit nekk ab xolam ne fi te xol yi la soxla xol yi la soxla ilaa man ataala bi xalbin salim ak xol xalbun mutmainatu yooyu yi la sëñ bi la sëñ bi soxla daa bëgg a defar xol yi moo tax mu di leen laaj alal yi ndax fii ne dëkk boo dégg na lakk na banque ba sa alal ne moom da nga laaj ba xam egg na fa am dé na sëñ Tuubaa di suñ banque jërë ngeen jëf ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew wala si biti ngeen di abonné si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal